na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 يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى على آله وصحبه وسلم تسليما باق سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام في الدنيا والسلام في الآخرة والسلام في الدنيا والسلام في الآخرة والسلام في أهلنا والسلام في حركتنا وسكنتنا والسلام في جميع مراداتنا والسلام على إنس وجني والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مالك نيون لي سانتات بو باغ لا گرم اوكازيون بي نيو ماي شي شيخ احمد بامبا داخ بس بي موم كيب كولا سي وو رك موي وونا لا سي يو وونا لا سي غير سانت يالا بوروم خام خامي ني ناني مبولم بونتو دي دين تيجو بام دس بونتاب سانت يالا كون نيو غي سانتات يالا بو باخ تيو ناني في رن yàgg nañ fee teew ñoo ngi ñaan yàlla ñu yàgg fee teew ànd ak talak fekkee heure bii déwén ku ci nekk aajo boo andi yàlla na ko yàlla faj ba bu ñu fee dellusiwaat déwén ku nekk yokk ba yëgal ko boppam di ñaanal suñu yaay rama yàlla may ko tawfiq bu baax góor ko tamit yàlla na ko yàlla yéegal si barsaqaab Cheikh Ahmed Bamba si àjjana yi gën a kawe te barke Seydina Muhammad may sant di gërëm dëkkandoo yi ak xarit yi nga xam ne ñoom teew nañ fi te nga xam ne buñ fi téwulon bëss bi du rafété ni ak mbokk ak dëkkandoo mo leen fi téwlo kon ñu ngi leen ci sante bu baax di leen di ah di sant tantarama jaañ tantarama jañ bu mag ñi ci ñoon bu mag ñi ci woon duñ leen defaral sa togaay yar nga njabot gi ci diine yar nga leen ci liggéey yar nga leen ci l'islam yar nga leen ci fulaak fayal ak ngor kon tantarama yal na la yalla yagal sa taxaway ci kanam njaboot gi ah xale yi nag duma leen gërëm dama leen di ñaanal ndaxte ci lañ toll lii ñuy def defaluñ ko seen bopp de yàlla ak sëñ Touba lañ koy defal parce que sëñ Touba moo waxoon ne sant leen ma yàlla ci sama bés bii ngeen xam ne moom laa moom laa dëgmal kon ñoom lii ñuy def defaluñ ko seen bopp kon sëñ Touba ak yàlla lañ koy defal lépp lu yàlla fay sëñ Touba nag yàlla na leen ca sédd ndax bés bi newuloon bésu mbégte newuloon bés boo xam ne sañ Touba daa dem ba ñëw di bàkku bañ koo jéem jëlee ba muy dem lay bàkku la la lay bàkku di sant yàlla te xam ne ndam li muy indi ndam lii tey nag képp ku ko ji jàppale yàlla na la yàlla jàppale. am yan kon teggin nga comme sutura nga comme ak jàmm nit ñi nga nit ñi moom mu ngi nii rek loolu ma lañ lay fay li may wax ni waxuma ko ndax bakkan. lu ma genre boobu lu ma wax itam nga xam la neex du ma genre boobu fii nga juddoo si koñ bi nekk foog ñun maa mag foofu xam naa si yaay bu baax fii laa jëlee jabar awa fay waaye li may wax ñëpp xam nañu ko si yow mooy li as wax rek ku baax nga ku am jàmm nit ñi nga ku am yar nga ku amit nga quartier bi nga ne ñëpp ngay kafal ñëpp nga amal jàmm nit ki nag lu mu toll rek loolu la joxe lañ ko delloo nit ñi tey amuñ jot waaye ñëpp nga bàyyi seen soxla ñëw fii ànd ak yow ci lii nga bëgg bésu màgg bii bés seen Tuubaa gii waaye ma nga lay yëgal ne wallaay suñu amoon jàmm nit ñi kenn du fi ñëw ngi ñaan yàlla yaa defal la jàmm sutura yow ak sa dëkk yëpp nag yàlla bàyyi la fi dëgëral la li ñu wax dëgg la ñu ngi sant yàlla bu baax say mbokk gëlëm nañu nag Seydou Samb ngi nii Seydou Samb mu ngi toog nii moom ma ko wax moo ma ne leen Malick sàmb gërëm naa ko sant naa ko ma ne ko tax mu ne ma loolu la may defal yaa ko loolu la may defal te moom rek du moom kenn rek de xam naa sa mbokk yu bëree bëree bëri am na ak jàmm ñoom ñu gërëm as bu baax di ko sant xulum bi ñu toog ba Omar soxna moo fi dëkk yoroon yoroon xadara bii dem bàyyi fi imam bàyyi soxna mu baax ma ñëpp xam ngeen ko mu nekkoon fekk ñun baaxoon loolu tabaarakallah dem bàyyi ko fi moo xadara bi moom njaboot gi yëpp mu góorgóorlu bu baax nag lu xew tey mooy taxaw xam lan moo ko maye Pastef rek nit day am Pastef di dee am fulla di dee am fayda li nga yor nga téye ko sàmm ko xam ko foo taxaw ñu gërëm la am na yar am nay teggin am na sutura kenn du ko seen ay fleur li li am la wax rek ku am yar la ku bàyyi xel doomu aadama yi la moo tax ñu bàyyi ko xel